له تدرعت فيكم مبغدا لكم ما لم تتوبوا له والله قد شهد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تي ندقل الكلفة قتدقي الشيخ محمد منتخى يالا في يقلول تأندقر ب مولمنا لينغي خمني أمنا كوتي لجي الإسلام أم كوشي لجي سرين دوا suñ borom may ko kattan ak wér ba lépp mu mottali ko di jot lépp nuyoo ci réew réewum président Macky Sall ci ak mboolem délégation bi mu àndal ñëw ni ko sëriñ bi waxee ci làmbiñam te moom waxoon na Cheikh Mahamadou Lamine Bara ne ko sa ñaari kàddu yii de moo gën suñ junni kàddu kon wax ci ginnaawam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 mu wax leen la jël naa sa mbir dénk ko Sëriñ Tuubaa ngay ñëw di wut si mu waxaat la ne la dalalal sam xel ndax sa dénk naa ko Sëriñ Tuubaa noppi naa ci kon nag loolu wala taktumu shahaadata wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbuhu kon sëriñ bi lañ ñaanal ni mu ko waxee mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp nag ni moo ko sante woon ñëpp ñëw nañ bi ma koy digal nag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 واجتناب نواهيه وهو الأمر الذي من أجله أسس شيخ الخديم رضي الله تعالى عنه مدينته المحروسة ودعا كافة روادها إلى الالتزام بهذا المبدأ الذي يمثل تعاليم الإسلام الصمحة وامتدادا لما قام به الشيخ عبد الأحد مكي ابن الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنهما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 ويحافظ على أركانه وخاصة الصلاة التي هي أهمها بإقامتها في أوقاتها ومواضعها مع شروطها وآدابها متى أدرك متى أدركتهم على ضوء ما قاله العبد الخديم رضي الله عنه من شخلته الصلاة عن الأشياء انتفع بها وبالأشياء وعلى الأساس نفسه فإن الخليفة حفظه الله يمنع منعا باتا في مدينة طوبى وتوابعها تعاتي شيء من سائر المشروبات الكحولية والمخدرات أو بيعه ممارسة القمار بجميع أنواعه التدخين أو بيع أي نوع من أنواع الدخان استعمال آلات اللهو والطرب من الموسيقى والطبول وسائر المظاهر الفلكلورية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 الذي يتم إعداده في إطار مجمع الشيخ أحمد الخديم للتربية الإسلامية وستتخذ إجراءات صارمة ضد كل المخالفين لهذه التعليمات من, من طرف اللجنة المراقبة والمكلفة بذلك بالتعاون مع السلطات الرسمية هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما كثيرا صدرت في مدينة توبة المحروسة بعد مشاورة آل الشيخ الخديم رضي الله عنه وموافقتهم بتاريخ عشرين من شوال سنة أربعين وأربعمائة وألف من الهجرة وين كانت من يونيو الدسنة ميلادية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلدي تي ديجلو سرين بي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 boo amee lu mu ci war a wax wala lu mu war a digle moo koy waxaat ci làmmiñam wala mu digle ñu def ko birum mbirum boppam kon nee na moytu kenn kuy wax ci turu yoone ku ko defati ku ne ne ñëpp xam ne woyatoo ci ndigalam bokk ci ak njabootam. ñàkk tënku ci njàngalee lislaam ni ko Serigne Touba digle nee na sos fi jàkka wala jàngukaay ci lu dul ndigalu kuréel gi Serigne bi di teg loolu ci seen loxo mi ngi digale képp ku fi yor ab jàngukaay mu tënku mu tënku. ci li ñuy ci wàllu googu te mu jëmoo Cheikh Ahmed al Khadim li tarbiyatil islam yi di ko saytu te mooy daara ju mag ji muy taxawal am xeeti jàng yu bare bari nee mi ngi digal ñëpp ñu tënku ci ndigal yi dana amit kurel gu mu ko dénk ñu àndoon ko ñu ñu ànd koog ñi fi nekkal nguur gi ku ko wàcc ku ne dinañu ko yóbbu ci yoon mu teg la la ca war teg ko daal ci war dogal bii nag jël na ko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 naal wu rëy di jumaay Serigne Touba ji ca Ndakaaru te sëriñ Saliou Mbacké radiyallahu naaloon ko ba tegoon xeer wa ginnaaw bi Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw teg xeer ci pàkk mujj bi Cheikh Sidi Mokhtar ñëw tàmbuli liggéey ba ba jëf ci lam ci jëf ba ñoo ñëpp suñ borom def ñu wuji yàlla fekk Serigne Touba mu ñëw nag ngir fas yéene àggale liggéey ba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 Mbàkke xel yëpp dal na Cheikh Muntaxa yàlla nga fi yàgg te wér